leen ak jàmm ci xibaar yéen i kaay wuroo dem na këng mag dem na nañ léegi tey nag lu waaye doon jaay léegi tey mu lamb waaw yéen i kaay bi di l'observateur di ñu xamal kay jogante jiitu yi nga xam ne nag moom la ñu dënmal jamono waaye nag jamono ji ñi nga xam ne ñoo di candidat yi waaw ku nekk ngay waaj de ku nekk ngay waaj candidat yi kenn sa bopp maanaam lépp loo xam ne daal jëm na ci wàllu mobilisation ku ca nekk la yaa démb kay na fi nga nga ko ne na seen xel dal seen xel mën naa dal laa wax xam ne moom la ñu doon ma léegi tey biri la daanaka egg nañ ci waaye nag jongante yooyu nga koy gagné premier tour premier tour boobee mu ne da koy gagné mu mel nag ay candidat yoo xam ne daanaka ñu ngi koy xëccoog moom ci nekkoon ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Mbacké Balla waaw Serigne Mountakha Mountakha Bassirou Mbacké professeur Issa Sall ba mu ñëwee ci Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yëkkati kàddu daal di koy xamal ne université bi ñuy tabax ci dëkk bu sell bi di Touba waaw askan bàyyi koon fu nekk laa wax Idrissa Seck doolam fu mu ko jëlee fa la demee fi nga xam ne nag daaru musa ñu bëri nag nekkoon foofee di ko xaar moom ndaamal kajoor moom ndaamal kajoor ki nga xam ne nag moo di Malick Gakou jamono ji nee na yaakaar dëgg lañu am ci ndaamal kajoor maanaam jongante yi ci lii laa koy gagné wala lee Malick Gakou di ñu xam laas bi ñu xam ne daal génne nañ ko ne Idriss Seck dina gagné jongante njiitu yi nga xam ne premier moom la ñu dënmal waaw premier tour laa wax Idriss Seck da koy gagné kaddu yi Alaaji Malick Gakou la laas yéenekaay ne ko ak lu mën di xew yi nga xam ne nag moo amoon ca Tambacounda dañu leen a karoot ay jafe-jafe la ñu leen bëggoon a bi di foore ki nga xam ne nag moo di Idrissa fekk leen ma ci suuf ba léegi ci biir yéen bi dañu xamal ne Abdoulaye Wade kay daanaka jamono ji fa mu tegoon tànkam ba teggiwu ko bu tegg seen tànk ba ci 24 at yi ñu daal di seet ñi xam ne nag ñoo ànd ànd ak Ousmane Sonko ñu jàppal Sonko te nekkee ci dëkk bu sell bii di Touba di mouvement Magg Sot moom nag ay ndaje mu yaatu moo xam ne nag dañu ko doon amal ci Touba ndaam waaw ndaje ma nag ña ngi ko doon amale ca wetu kër soxna Mame Khary ñoom nag jamono ji benn opération la ñu taxaw nee nañu opération ba la leen ñor mooy jógante ji turé yi nga xam ne nag moom lañu ci doon mal bu ñu ca eggee Macky Sall du am zéro voix fii ci Touba